géej nañ ko gis wonte nak ci soirée Kiné lambi bi ndaanaan yépp ñew nañ ñu gis leen gis seen prestation mu rafet macha allah. waaw deug la xam nga liñ naan ndaanaan mom ah, du bàyyi. du gawa a bok sa mm-hmm. saa ñewé rek ah da ngay bokkat mm-hmm. waaw gej na nak ci géew bi ndax tan yi rek pourtant ma ngi def Ben single. Mm-hmm. ba def ko clip ak yépp. wante nak gëj naa tam ci géew bi. waaye xam naa ni nit ñi ñu may bàyyi xel. waa ñu ngi xalaat ci man toujours daal ñu may bàyyi xel daal. ba tax na waaw guddi ki laam gi nag ki na laam sama yaay la. dëgg mooy sama soxna papa. nag fonk ma bëgg ma te lu muy def santiir ma ci. kon su demee tey jii ba di yëngatu ci lii sam papa nekkatu fi. muy def lu mel ni tey ah boole ma ci. waaw mhm. ah, dama ci dem ak yéene. Mhm. dem ci xol daal ba mu jeex. Mhm. da ci dem ak yéene dem ci xol ba mu jeex ba tax na tey guddi googu ngeen daal di ko tuddee ki nga xam ne mooy waali Wally Ballago Seck di féddale coloré bi nga xam moon amoon ngeen ko ak papa muy papa Thione. Hmm, waaw papa moom wax dëgg yàlla ku xool ci moom rek way dama jëlale ku ko déglu waaye boo ko xoolee rek. def sa jom ci way ndax nit ku baax la woon nit ku dëggu nit ku joxoon ñépp cër jox ñëpp respect waa ñu koy ñaanal nag fa mu dem yàlla na ko dàqal fii yàlla na ko yàlla xare ajjanay si te ki mu fi bàyyi ah njaboot gi yàlla na ci yàlla teg loxoom waali miit fu papaam yeggoon baa ñu dégg ko fa yàlla nañ ko dégg fu ko raw mhm. mérito na ko mhm. Papa Thioune mu nekk ku oyof damay profité rek ndax te man euh, jour bi may njëkk a wax ak moom téléphone la. Mm-hmm. déjà ci émission laa ko doon soxla mm-hmm. mais ci saa si mu nekkoon ndeysaan ku accessible. ku mm-hmm. oyof aussi nangul ñu émission bi ba noonu laa gardé moom contact ba ni muy décédé ñu koy ñaanal bu baax fi mu nekk mu gënal ko fi mu jóge njaboot gi aussi yàlla baaxkeel ko yàlla teg ci loxoom bu baax a baax. Euh, waaye maman tey émission bi dañuy njëkkee maman Kiné Lam fu nekkoon parce que gëj dañ koo gis ba ci émission ba ci sargal Wally Seck bi lañ door a gis ma maa def ay sañseem takk ay ooram ñëw yëngal Sorano tamit grand théâtre waaw waaw li ma la wax rek waaw moom ku nekk xam na ne ndaanaan la te moom bay na waaram ci métier mii mu nekk tey li ma la wax ci Thione Seck rek ki ne boo àndeek moom sax dangay sawar pour way ndax moom bu yooyu da ciy def jomam def ci fulaam def ci yéeneem. Mhm. da ngay xam ne lii muy def bëgg na ko mën na ko ba pare bëgg na ko. Mhm. boo xoolee ci moom rek da sawar. Mhm. pour pour gën a mën a téye sa liggéey. sawar mais lu tënkoon mama jamono yooyu yëpp amuñ nouvelle am génnewul single génnewul vidéo live wul ndaxte ci jamono technologie lañ toll live wul ci internet bi tamit. <laughs> def silence total. pourtant nag Kiné Lam temps yi rek mu ngi génnee ay clip yu rafet clip yu bees Kiné Lam gëjul ci télévision bi gajul gëjul ci marché bi ndax def na ay single génne na ay clip yu bees xam naa yéen ci bàyyiwul xel waaye génne na ay clip yu bees yàggul dara. léegi Tata Maty nag moom ci lu nekkoon. waa man maa ngi nii de maa ngi la naan temps yi rek. Mhm. génne naa benn single. Mhm. yàggul dara matagul sax 4 mois. Mhm. waaw génne naa benn single maa ngi ko woy sama benn xarit coro ku nekk États-Unis mhm. koo xam ne tam daf ma bëgg fonk ma tam musul dellu ginnaaw ci man toujours mi ngi may gën a wan cofeelam mhm. laa ci woy mhm. léegi nag ba def ko single bi daal même boo tàppee sax YouTube da gis single bi ngay def clip bi mm, yaa ngi ci benn maison de production wala ba tey freelance la maman nekk waa nekkuma ci benn à part Sorano gi ma nekk maay débrouiller sama bopp rek. ngay débrouiller sa ah, propre fonds maay débrouiller sama bopp ci samay fonds wu bopp rek. Mhm. ak samay nit di ma jàppale rek. loolu ba tax na sax loolu moo retardé sama liggéey. Mhm. ndax ku nekk xam nañ ñun suñu liggéey dafa laaj xaalis. te tamit euh, dafa metti léegi ndax léegi producteur amatul. Mhm. yow yaay dem ak say moye yi bopp rek def sa yëf. xam nga loolu boo ko bëggee financer. sa bopp. bëgg koo defal sa bopp faaw mu metti faaw mu am battement loolu mhm. rek moo indi léegi battement yi mhm. d'accord loolu indi battement tey bu ñu naree def benn xayma tey ma ne Tata Maty lan la ko apporter lan la ci am lu concret bu jëlee exemple Wally Seck ndaw la wante gis nañ building bi nga xam ne daal dina ko tabax wër sa yemul wante tey bu ñu defee laaj ma ma question boobu lan la ñu ciy tontu. waaw sant yàlla rek ndax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla ndax so ci woné sa wajur sayyiduna muhammad am ci kër am ci auto am ci say or ah te terewul ba ndëg ni yaangi fonk sa borom kër tay nga ko gëna tek ci kaw lo sant yalla la. Hmm. or bi ñaata na gis nañ tay ah. or bi tendance bi da metti de mama na de dara wante nit li ngay liggéey. war nga ci jënd bañu xamni li ngay liggéey ci jënd ndax or mom ku nekk xam na ni dafa baax denc la mhm. or soo ko amee ñàkkoo kër ñàkkoo oto ñàkkoo dara mhm. ndax loolu boo ko xasee ba am rek yooyu yëpp man nga am mooy am ko mhm. sama yaam moom ma koy wax moo ma ne or ndey la dëgg la nee na or rek ngay am léegi am sa soxla dem léegi teg ko fenn faj soxla boobu te doo laaj kenn doo ñaan kenn nee na yaay la ah moom jigéen ñi war nañ ci bàyyi xel di ko jënd. wàññi cheveux yaag ah. téléphone yu cher yi. waaw waaw <laughs> ah waaw loolu de ore ko ëpp solo moom. génération bu bees bi maman dañoo bëgg iPhone 13 de. ñoom ah. moom <laughs> waaw wax nañ dëgg ndax bés bu daa at mu nekk li ciy war a am. dëgg ñoom dañoo toll ci loolu ndax ñun tamit nag li ñu tollool biñ ci tollee def nañ ko. Mhm. kon ñoom tam li ñu toll nañ ko def. Mhm. waaye rek nañ ko tegit ci yoon. dëgg la ndax bul bëgg dara tamit ba ñàkk a xam yaay kan. Mhm. ah ndax ñi koy am di ko teg ci yoon gënuñu la kon boo koy am tam teg ko ci yoon. Mhm. waali moomu nag tey lu mu mënti tabax lu mu mënti am. Mhm. yaram ak mbaaxam mën na ko koo may. ndax moom dafa fonk ñëpp. Mhm. ba pare bàyyi xel nag ñi ko yàlla booleel. Mhm. dëgg la loolu loolu am solo la maman lu am mhm. solo déjà ci Wally sekk boobu rek gis nañ ne sa rakk mu ngi kër Wally Seck mu tiye ko tiye bu rafet. yow tamit loolu doon na loo xam ne day gën a raffermir famille bi day gën a tax ñu gën a jàppante yow loolu bi nga ko gisee ak showbiz ni mu méttee nga xam boo commencé am tuuti rek beddeeku ñi nga amoon démb sa doo leen bëgg a fréquenter. sama rakk yàlla daf ko booleeg waali dëkkul sax kër waali moom mi ngi këram. yàlla boole ko waali muy Ousmane Thiam muy sama caatu yaa nag ñu bokk ndey ak baay. waaye waali daf ko bëgg. daf ko fonk. da koy day da koy jàppale daal. koy jàppale ci wet yëpp waaye yëg ko daal ta moom bi muy ànd ak waali mën naa am boobu waali yëg si woogul fii mhm. waaye tamit bi mu fi yëg see fàttewu ko mhm. waaw da koy teg toujours ci wetam teg ko ci kanam mhm. waaw ba moom tamit amul sax sago ci waali ndax bëgg gum ko bëgg te nekk nii li may magam yépp di woy tey soo ko ne woon tey jii ñaari woykat yii ah kan kan nga ci jël mu ne waali waali waali lay tan bayima ma <laughs> dafa xir ci wali bëgg waali eh. moko gënal ñepp mm-hmm. amna na solo mbokk dafa for te mën nga dag lepp ba dess des nak te dereet la mm. eh, tay buñu waxe it mama mati cham dinañ wax mama mati cham ci sañse te 96 ni mu koy tambalé di wax ba tay mm-hmm. style de yi ngay sañse teg nga ko ci temps mm-hmm. teg nga ko ci classe teg nga ko ci aussi lu am farata lu lu rafet lo xamne bu boo ko gisee rek di nga xam ne lii rafet na te vulgairewul tey ci sañse yooyu maman sa jamono sa sañse bu gënoon a fort est-ce que mus nga cee dépenser lu tollu 3 millions wala 2 millions wala cent mille ci benn mbubu. non non loolu loolu doo yegg foofu. loolu doo yegg foofu xanaa xam ne sañse bu la gën a oyof moo la gën a rafet. dëgg la te ba pare ñun presque duñ jënd mbubu ñun nit ñu baax ñi giir ñu baax ñii ñuy may mbubu ba ci lii ma sol rek. da rafet sax tendance ati bi établissement ah, bokk jom soxna nduur bi jox bir xabi ñu duñ jënd yéré ndax giir ñu bax ñi nga xamanteni ñom lañu yalla kon fo lolou nga xalaat ñun duñu yegg ci fofu ci sañse lolou man nañ ci am sax ay mbubbi mbubbu nañ ci am mbubbu yu bari nak rawati na nak ñun li la wax rek duñ jënd mbubbu ma sol ni li rafet lepp mm-hmm. sama géer ko yëkkati jox ma rafet na macha allah tey ba tey ci sañse bi gis nañ xale yu jigéen ñi seen sañse du ñëpp ñoo koy def wante it am na benn vulgarité boo xam ne ñàkk kersa ak transparence buñ ciy wone tey loolu euh, jamono toll fa tey lan ngay wax xale jigéen yooyu ak jënd dàll yi 3 millions wala 8 millions entre autres ci ndaw te nga war a investir ci leneen. waaw ñoom seen xalaat noonu la toll rek loolu même soo jógee sax war koo def. ah say parent waruñu la cee seetaan. ndax huit millions ak trois millions ku ko am boo ci amul terrain it ah mën nga cee tabax dara wala nga def ci loo xam ne bu ëllëgee moo amal la importance. col nag mën naa yiw ba pare rafet. ñun noonu la ñuy soloo man ñi ma maaseel génération yëpp. tey jii dañuy sol lu rafet te day tegu ci yoon te duñ sol lu vulgaire. Mm-hmm. lu vulgaire moom yàq sa der la rek ak yàq sa bopp. Mm-hmm. ndax li nga sol rek ci loolu lañ lay xool te mën naa am sax doo loolu. Mm-hmm. waaye comme noonu nga soloo buñ lay xoolit dañ lay xool ci loolu rek. te col gi mën naa rafet ndax lii ngeen yor tey muy internet ak. ah télévision lu ne day wër àddina te kenn moomul sa bopp te yàgg yàgg yàgg mënoo nekk ci ndaw rek te doo màgg. Mhm. xar nag day weesu mbote dangay nekk ci xale di màgg am ay doom doom yooyu ëllëg dañuy am ay doom doom yooyu ëllëg amaat ay doom te at chiffre moom du du fay. dëgg toujours buñ ko tegee day mel ni tey la. Mhm. nga sol loo xam ne nag say sët ak say sëtaat seetaan ko ni kon sama maam lii la daan sol. Mhm. loolu ku nekk war na koo bàyyi xel. surtout nag fii. àddina bi toll. fi àddina bi toll. technologie bi fi mu toll. ku yebbu daal looy def di bàyyi xel lu bari fi technologie toll tey porte à lañ koy wax xaw ma mbirum Dubaï tey est-ce que maman xaaroon nga ci jamono der bu ñuul ñu site ko walla sax ñu wone vidéo yooyu nga xam ne ñaaw na torop ngir alal. waaw ndaxte boo bëggee am xaalis te nanguwoo sonn noo ko amee baax na xaalis dafa ànd ak coono. yéen tey bi ngeen di jóg di ma defal lii sonn ngeen. man bi may jóg di ko def séeg yéen sonn naa te lii li ngay liggéey ëllëg ci nga mën a tedd ci nga mën a terle. waaye léegi nag boo bëggee am xaalis gobe ay million te nanguwoo sonn. te ki lay def loo loolu mi ngi lay def lu ñàkk fayda ndax moom amul ko am am importance def loo nit lu bon. lu neexul yàlla neexul yonent bi ah loo xamante ni daganul baaxul. nga di ko def loo nit loolu ban njariñ la lay amal yow mi ko koy def loo. moom mi koy def it même bu ci dee dem di ci terali ay waajuram tamit ah mi ngi mi ngi doye di même su dee dem di ci ay waajuram tam mi ngi manqué mi ngi doye di kon nit. da ngay am jom am fula waye am lo xawenteni tay ji soko beugé ko def ndax alalu adina yow jojo alal bokoy lek wër nga ngaa ta alal Joy teral say wajur di ci teral nit ku ñu bax ni di ci teral say mbokk warna sel ni ñangi am de ni ñangi am li ñu am di def li ñu def yalla di len teral ta bo len vérifier won ba yegg ci bir do gis mukk ñu am ko ci doyati. man di bëgg naa lu may am rek mu lew lii ma yàlla jagleel muy sama métier mii lu may am di ko ci am bëgg naa mu lew bu ma ko commencé ak léegi nag maa ngi sant yàlla. ndax maa ngi fexe di ko teg ci yoon bu bëgguma cee def ëllëg loo xam dañ naan cim xam nga léegi-léeg nga gis ko am ba pare ñu ni moo kii de. bu ko ñëwee ndax xamoo nu mu def baam ko. Mm-hmm. man nag ñëwuma ki ma ëpp xaalis. Mm-hmm. man ki ma ëpp ngor laa ñëwee. ak ki ma gën a nangoo jaamu yàlla. Mm-hmm. ndax ki ki ki la ëpp xaalis xamoo nu mu def ba am xaalisam. Mm-hmm. te mën naam am buñ tegoon tey jii la mu def ba am xaalis yow buñ la ko def loo doo ko def. Mm-hmm. man de lu may doyee di rek fa koy bàyyi. bëgg naa lu may am rek mu neex yàlla. kon yaa booy d'accord ne xaalis dañ koy lijjanti wante dañ koy liggéey. ah waaw xaalis dañ koy liggéey waaye xaalis tey jii ah fi mu toll nii. leg leg nga gis lo xam dal yow day doy war waye nak ah war nañ dal di baye xel ci lu bari tax nak wërsëg mom man na jóge fune ne. dëgg la yàlla man na la def legi yoro dara tay yalla xëy bëgg la def milliardaire ci ciobarem def lako mhm. waye dal man dal wa Dubaay yi man dama ni sax lolu amul. ñuy fabriquer la. wala lo xamni la dañ koy wax rek waye man xalaatu ma nit téméré million sax amna lo xamné xam ne waru la koo jaral ndax gor nak da nga wara a gore ba dee te ay sénégalais it wax nañ leen ci même bu nekkee seen tour génnagul tamit ñi ngi lam lamé yenn ci sénégalais yi nag ñom seen alal wala euh, rafet ñaaf euh, xalaat nañ né ñom def nañ loolu vidéo bobu wa loolu de ku ko ci mënti def tamit ah yap nga sa palax de mm-hmm. te bés bu loolu feeñee say waajur ñu bëgg dara ndax bu sa doom tukkee su la yóbboo màkka da ngay kontaan sa doom tukkee bu la jëndalee ay or da ngay kontaan mm-hmm. sa doom tukkee bu la jëndalee kër defar ko ba mu rafet dugal la ci da ngay kontaan mm-hmm. ku takk ci yow sax day kontaan kon tey boo demee nag ñu vérifier ba xam ne alal jooju ci loolu nga ko amee mm-hmm. sa yaay bu dee ca kër ga la bëgg dëkk dootul bëgg a gis googu kër dëgg la yaa ngi bëgg a teral sa waajur. Mm-hmm. ba mu jaral la nga sàkkir wu def loo loo lu bon waaye lu bon mën ngaa def lu baax te am. Mm-hmm. nit ñaa ngi fiy def lu baax di am. Mm-hmm. ku topp sa métier ne ci bu la ci yàlla dimbalee te ubbil la ciy xeewal mën nga cee am loo bëgg am te doo def lu bon. lu bon moom baaxul fenn.

wa xam nga nit li li li ndof moy man rek man man rek lay nek man rek la man rek la deglu man rek may ak lolou dof rek akoy koy xalaat affaire bi geej la ku nek man nga tank ba suba ta du jeex ku ne man nga ci bay sa war ta du jeex ar kenn mënu ko jeexal bu ko kenn doon mën a jeexal benn waykatayam baa ñaar waaye tey mënutoo wàññi waykat yi waykat yi mënutoo wàññi fecckat yi macha allah ku ne mën ngaa bay sa waar te du tee ñu rafetoo <laughs> tey jii yow sa kër boo xëyee yaay commande li nga bëgg ñu toggal la ko man mii noonu keneen noonu tey jii am na ñoo xam ne man buma woyul pour ñom kenn woyul nan mati cham rek moy sama kan am ñoo xamanteni bu kenen woyul bu len mati cham don woy fi ba suba ke ñu bëgg bëgg nañ ko ba pare lool nak ku ko xam noppalu ndax affaire bi mom geej la rek ku nekk man nga tank ta do ci ñaaw ñun nak wax deug yalla man ñima ma sel génération ah man de musuma xuloo kenn mhm. musuma defante kenn musuma am ak kenn xaar ma yàlla woykat yëpp samay xarit lañ ndax man loolu laa visé ca loolu laay dox moo tax. Mm-hmm. ay defanteeg yu doyat yooyu ba musuma cee dox. Mm-hmm. comme doxuma ci nag ba yëg si fii. ah man naa am duma ci doxati. d'accord au conseil ndaxte gis nañ récemment kii di Bass Thioung ñëw ci public Wally Seck wéy mu doon lu rafet ndaxte ñoom ñaar sa bokkuñ maison de production te gis nañ concurrence bi euh, bas euh, ki nga xam ne it mooy Sidi Diop mosoon naa yéeg ci seenu Wally Seck ba Wally micro boobu joxaat ko kii di El Hadj Keita récemment bu ñu gisee ñoom ñaar seen concurrence fancy yi nee nañ ñoo ko créé ñeneen ñi label est-ce que mun nga xaar njort tey suba waale di tëgg sii di débarqué ñëw rek jël micro di woy ngir public bi ñëpp kontaan loolu moo normal ñun ñu ngi nii ñun dañuy invité suñu euh, anniversaire ku ci def sa anniversaire da ngay woo sa morom def ko invité d'honneur bu ñëwee nga taxaw woy ak moom mais ñi wuru sa ngalam la ñuy joxante ma moment. waaw déedéet dama ni. Mhm. ñi nga xam yow ni nga man ñi ma maaseel jamono. Mhm. ñun ku ci nekk anniversaire na ba tàyyi woo sa morom mu ñëw assister. Mhm. bu ñëwee nga def ko invité d'honneur bu ñëwee nga wayloo ko ba pare teral ko. dëgg mbaa moom mu woo boo ñëwee mu wayloo la teral la. ci ñun ñi maasa jamono ñun de ci loolu la dox. tey jii ñooñu loolu ñuy def moo normal. Ken mënu la fexé ba do way kat ken mënu la fexé ba Sidi do way kat kenen ak kenen ak kugem non mm-hmm. te nak ku gëm ni yalla mi moy dogal mm-hmm. ah di nga noppal nit ñi nak dafa am ño xamni doxu ñu ci jàmm mm-hmm. waxuñu wu ñu jamm ñom ay yeekatu fitna lañ rek fu ñu toll bu ñu nit ñi duñu jamm ndax maa ngi gis ci korité gi waa ni ñu ngi invité Sidi Diop. biñ ko invité. mu ñëw ñu ngi ko naan benn surprise buñ lay defal. biñ koy defloo surprise bi moom xamul ban surprise lañ koy defloo ndekete waali la ñu woo pourtant bi mu defee loolu nag ñëpp dañ koo rafetlu. dëgg la ndax xam naa ne waali amul problème di Diop amul problème. Mm-hmm. waaye maa ngi dégg keroog maa ngi seetaan. ci TikTok bi gis koo xamante ni mi ngi critiquer di jóob naan ko gëmal sa bopp ak dangaa ñàkk fay ak dangaa doy. waaw ndaxte ñu ngi naan ni appel boobu du naturel ay dóor la daal seen diggante. waa du dóor nit ñee ko gisee noonu rek waaye ñoom muy moom di waali di Diop. Mm. Mm. nan bañ am nanu jàmmoo Sidi mënu la fexe ba waali tax mu bàyyi woy mm-hmm. waali la fexe ba si di bàyyi way mhm. ku ci ne yaa ngi way am nga say fan sa ku yaa ngi tëgg am na ñoo xamante ne tey waalee leen ñor am na ñoo xam tey Sidi Diop leen ñor mhm. man mii wayoon 96 ba ndëgg ne am na ñoo xam tey bu ma wayul ñu kenn wayul waa léegi loolu doo gëm yàlla mhm. nit ñi ñoo war gëm yàlla bàyyi artistes yi ñuy jël di leen méngale naan ki ay uh, rivalu ki ak ki ay wujju ki loolu baaxul. maman euh, bu ñu seetloo sant yàlla car macha allah. Mhm. yaay booy bi nga toogee ba tey jógoo. Mhm. loolu doon na lu jafe surtout mu nekk ci célébrité wala mu nekk artist tey mhm. gis nañ ñi nga xam ne ay célébrité lañ euh, seen sëy yi demeetul noonu déjà ñu commencé rek ci mbirum maye bi maye bi bu njëkk ba. dañ doon indi ñeent ak tarance ci sutura. Tak sey bi nga sey sey bi wante fim tolu ni nii ku ñu indiwulul ay million indi luñ la ay or indi wuñ la ay iphone bank snap pour yow amon dara ndax tey sey bobu ak sëyu demb ban mo ci gëna deugër wala ban mo ci gëna bax ci barak ci barké ak aussi ci sutura waaw xam nga suñu mam yi ak suñu yaay yi ñoo tombé won ak ñent ak tarance ñun biñu ñëwé tombé tombe may gu njëkk ak warugar waaye terewul boo bëggee sëy te gëm ni yow dangaa war a sëy mm-hmm. ah ci li ma xalaat ni yow sëy rek ngay def sa ànd nag benn neexu ci mm-hmm. sëy munu la neex ba abadan mm-hmm. sëy munu la neex ba continuer sëy day neex tey suba mu metti sam moo daan wax sëy kenn du ci takale xulo ak xex waye ku ci yag mu fekk la ci deug la xam nga lolu mënul ñak ci sey mm-hmm. ay bu gene ñaar ñi and lamagne bëñ ak lamagne ñoo dëkk pourtant toujours ñu gañante ta buñ pare ñoy nekkat mm-hmm. lolu nak boko ci xolé rek ah gor a lu rek mm-hmm. ndax ki ñew bayyi ñëpp wut ci la ah su sañoon da ngeen di and ba adina yi jeex ki nga xamanteni ku ne wut ci na mu ne yaw la su sañoon dangeen di ànd baa àddina jeex. dëgg la nag diggante moom fu ko yàlla yemale fa yem waaye daal xale yi daal nañu gën a farlu ci seen sëy. ndax farlu ci sa sëy nag am na lool importance. boo gëmee ni man damaa bëgg a sëy rek da ngay sëy rek. boo gëmee ah ku ne nag li nga gis. ba tax nga génn ci sa sëy yaa ko xam waaye man pour man benn jigéen bëggula a tas sëyam mm-hmm. benn jigéen bëggul génn ci sëyam mm-hmm. lu yàlla jeexal nag xaw mu jeex. Mm-hmm. te sëy ñaar fi muy mujje benn baaxu ci. maara day taali mu suul la mbaa nga suul ko mbaa ngeen xëy rek tàqali ko. sëy foofu rek lay mujj ci ñaar yooyu. Mm-hmm. te ñaar yooyu du ci neex benn du la ci neex. Mm-hmm. waaye ci ñaar yooyu rek ci lay mujj. loolu moom ala kulli séparation musul neex tey maman bu ñu xoosee nànk nag ci sa vie nga baal ñu tuuti rek gis nañ ne papa Dogo moom macha allah dalaa bëgg Sénégal ñëpp xam nañ ko tey boo ñuy wax ci benn anecdote lu mu mës a def loo xam ne touché na la sa xol nga kontaan carrément loo xam ne daal doo ko doo mës a fàtte. Ah. ci geste. wala ci cadeau wala ci lan. sama papa. Mhm. sama papa nga wax waaw sama papa moom nit ku baax la woon. papa ju baax papa ju man sam papa bi ma juddo ba ni ma toll musuma mer ci mom dama mas di kontan ci mom ndax mom kilifa gu baax la won mm. bëgg njabot bëgg ay soxnam bëgg ay domam ñun mm-hmm. daf ñu daan togn bu ñu gisee naan waa kii tey sama gel bi tey sax ko aye ci yéen di ñu tooñ ñun doomam yi noonu mm-hmm. la daan kafeeg ñun ah tey moom ku ci nopp sax ci yéen tey yow de laa nopp mm-hmm. loolu la daan kafe ak ñun di ñu tooñ di kaf ak ñun bëgg ñu bëgg doom ba dangay ngay ni kii dafa bëgg doom mm-hmm. kooku moom sans défaut bu papa yëpp meloon ni moom mm. ah ko kay lenn rek lañ ciy jooy dem gi mu dem rek te dootuñu ko gis waaye bu dul loolu benn doom ba pare dama jëlale loolu waaye comportement bi muy def ci yow yar bi muy def ci yow dina def ci yow fulla ak fayda ak jom ak mm-hmm. fonk sa diine mm-hmm. ak nag doo bëgg a dugg ci daray doyadi mm-hmm. moom boo dawalee sa xel ci moom rek dangay ngay gën a fonk sa bopp ok nañ ko ñaanal rek ah mu xeppee firdaw si suuf oyof ci kawam papa ju baax buñ ñëwaatee ba tey ci question boobu buñ duggee ba ci xuus ba ci biir biir ci néegum sëy loolu la ci gënoon a neex benn surprise boo xam ne def def nañ ko te neex na la touché na la walla cadeau walla act boo xam ne def nga def nañ ko mu mu touché la. waaw man sama borom kër nag sama xarit la man ki may sëyal sama cousin la waaye nag ah dafa ma bëgg yërëm ma loolu àddina yëpp ku ma xam rek xam nga loolu ci moom. Mm-hmm. mu fonk ma lool bëgg ma jàppale ma sama liggéey bu ma ci amee retard sax mu mere ma. bu ma meree rek ci loolu la ma mere sama jëkkër su ma génnul ci télévision du ko bëgg sax a seetaan moom ne ne bu ma gisul ci télé rek jarul mooy seetaan xam nga kon kooku bëgg na ma bëgg ma lool fonk ma mm-hmm. ah, te bi may takk nag boobu ah, ku nekk bëgg naa séeg moom man tamit boobu ku nekk bëgg na maa takk waaye bis bi ma xamee ne daf may takka ah, kontaan naa bu mbekté dé sama xol sedd na. mama ah, ba tey yaa belli. han ba tey. <laughs> yaa ngi belli ah te boobu mën nga xalé yu bari. bobu xalé la ta rafet <laughs> ci beauté ba tey sax. Ah, waaye bi ba ma xamé ne daf ma wara tak takk. Uh-huh. ba waxtaan ak samay parents ah bobu mbekté bobu dé amna mbekté mbégte. Uh-huh. ak bés bi nga xamante nak ah jël na dom tuddé ma ko jël jël tak na soxna ba paré tuddé ma ci dom ah. loolu de moom sama mbégte la. wax dëgg yàlla te ba lu fii may wax ak yow aw ma lu ma naqari ci moom tey la ma gën a bëgg. tey la ma gën a yërëm tey la ma gën a fonk. loolu sama njaboot ak ñëpp xam nañ ko. donc kay li ma koy ñaanal moom tam wér ak gudd fan bu góor meloon ni moom ah ku sëy rek danga fay sëy ndax moom dafa bari yërmaande bëggul ko ko mere. ba pare man su ma meree tuuti sax damay gis daf may neexal te ba léegi. fauteuil bi ma yëgoon ni teg na ma ci ba léegi maa ngi ci yëg sama bopp. Mhm. xam nga lan moo metti di sa yëg sa jëkkër mu fonk la ba dem ba nga xam ne fonkatu la xam nga ki teg ci fauteuil. Mhm. nga jekki santir mu teg la ci chaise. Mhm. ci banc bi rek la la jëmee. dëgg ah, moom nag defalu ma loolu tey la ma gën a fonk tey la ma gën a bëgg man tey laa ko gën a fonk tey laa ko gën a bëgg. te maa moom rek ba dinay jeex ci kàttanu yàlla li may ñaan yàlla <laughs> am na solo maman li ñu cëraloon ci minute jeex na mais nag euh, duñu jeexal interview bi sans pour autant que nga jox say actualité ñi nga xam ne say fan lañ ndaxte namm nañ la bëgg nañ xam aussi maman fan lañ koy xaar ci yenn show yi yenn programme yi euh, nga joxe sa information sa actualité sa fan yi ñu lay seetaan ci diaspora bi TV waaw xam nga ku nekk xam na ni moom muy man di sama morom activité yëpp a taxawoon mhm. ndax ñaari at yi li ñu jànkonteel ah. Mm-hmm. metti na mm, corona bi tojoon na dëkk bi toj boo xam ne ku nekk danga ne siiw mucc rek. <laughs> kenn defatul woon dara. Mm-hmm. waaye fi mu nekk nii activité yëpp jógaat na. Mm-hmm. Ah, maa ngi bëgg rek. ndax fi mu nekk nii toujours maa ngi gën a gis courage bu ma nit ñiy jox. ñu may gën a encouragé lii ngeen def sax. man woy naa bu yàgg 96. daa génne woon sama première cassette kon suma nit ñu baax ñuy topp ba léegi. nit ñi di wan ni ma yaa ngi fi. Mm-hmm. mënoo ñàkk ci géew bi loolu daf may encouragé rek. Mm-hmm. ba tax na ma ah maa projet yu bari maa ngi am ay léegi moom single ngay def. waaw maa ci single yu may préparé def naa single def ko clip. Mm-hmm. am na tam yeneen single yu may préparé. ak sama yeneen programme. yoo xam ne daal xam naa ne fans yi namm nañ ma ba tax na projet yu bari ah bëgg naa ko def daal bëgg naa def projet yu bari. di wax fans ak soppe yi daal ni leen daal ah ñu ngi maa ngi maa ngi waajal yu baree bari maa ngi fii nag soraanoo di fi liggéey. Mhm. même ñu ngi nii sax war fi def benn spectacle le treize. Mhm. Ah, muy xawaare ñun ñëpp dañ ci woy am nañ ci ay invité gi yëpp. Mhm. te dañ ci woy wax dëgg yàlla muy ñoom day juuf. ñoom dem ba gisee El Hadj Kayta Assane Mbuub ñoo ñëpp suñuy invité lañu. ak ñun waa ensemble beeg waa bale beeg ñun ñëpp ku ñëw la treize daal di nga fekk lu neex bu soobee yàlla. Mm-hmm. ñu ngi waajal loolu ak yeneen ak yeneen. Mm-hmm. <laughs> kontaan nañ ma ça a été un plaisir waxtaan bi am na solo riche na aussi ci enseignement gis nañ aussi kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko fi ci showbiz gis nañ ci waxu mariage en résumé ñi nga xam ne ñooy toll ci vidéo bi li fi wax lépp am na solo kontaan nañ bu baax ma xam naa beneen yoon rek incha allah. waaw man tam kontaan naa. Mhm. kontaan naa ci dérangement beeg déplacement bi ñëw ah. dajeeg man ci sama liggéeyukaay defal ma interview bi wax dëgg yàlla loolu yëpp ci yëg la bokk na ci li may wan ni ma yéen a may bàyyi xel. ndax vraiment ñi ngeen mën a jël bari na waaye nag ah ñun de xam naa ni ba léegi bokk. dëgg dëgg waaw.